شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy saan ci asfiyahi point org asfiyahi tv euh, ba léegi ñu ngi fii ci mosalu Thierno Saïd Nourou Tall ci ziar bu mag bi nga xam ne ñu ngi ko fiy amal di ko fiy amal nag tabarakallah chaque année euh, mu tegu nag euh, ci loxo yoo xam ne ñoom ñooy organiser lii ba at mu ñëw gën a am najaax a am réussite tabarakallah ñu toog kenn koo xam ne ci membre commission organisation la bokk muy Ahmadou Makhtar Tall Ahmadou Makhtar ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seen ci asfiyahi point org Euh, jërëjëf Oustaz Babacar Niang ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu mbooloo mi euh, ñi seetaan hfi point org di leen euh, jaajëfal tamit ci liggéey bi ngeen nekk di nuyu waa groupe hfi yëpp di leen jaajëfal ci liggéey bi ngeen di nekk saa yu ñu wootee ci ziar yu mel nii ak saa yu yeneen bërëb yu mel ni bërëbu diine yi wootee ñu ngi nañ seen taxawaay ci bërëb yooyu tamit ak suñu bërëb bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yokk yàlla na yàlla barkeel seen liggéey yaa barkeel Seydil Wujudi amiin tabaarakallah amiin yaa rabbal alamin euh, Thierno Amadou euh, yéen ñu dénk leen wàllu organisation ziar bi. te ku ne xam ne na yombul. parce que nit ñi di jógee fe fu nekk euh, yan yan dëgër laay ak yenn stratégie ngeen di ngeen di teg. ba mu am réussite bi nga xam moom la am. jërëjëf Babacar xam nga ziar bi mu ngi judd 1981. daanaka ci la ñuy def première ziar bi ak Thierno Mountaga Tall. moom bi Thierno Seydou Nourou làqoo. moom moo jël mbir mi. ne dina ko defal ziar. moom ak sëñ Abdoul Aziz si maam da baax. yàlla na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp. dolli seen leer. Euh, bi mu fas yéenee ne dañ koy dañ koy defal ziar moom Thierno du Nourou Tall. ay nit ñu am. fulla am mhm. fayda am mhm. maana mhm. ñoo wër nag Thierno Mountaga Tall doon ay taalibeem waaye doon ay doomam euh, doon ay ay ay ay ay nitam dëggantaan euh, tàmbali mbir mi ak moom euh, fii lañ ko commencé waaye bi muy tàmbali wax dëgg yàlla budget bi sax mën nañ wax ni lu néew la woon maanaam bu ba ëppee ba ëpp uh-huh. trois millions rek ziaroon na ca njaboot ci jamono jooju en 1980 trois millions ziaroon na ndaxte man sama wayjur personnellement bi ma jur. Mhm. ci la bokkoon. waaye moom moo ma jox xibaar boobu. est-ce que ne ma jamono jooju ci yooyu la nekkoon. kon kon daal bu bu ma la déggee comité comité d'organisation. Mhm. Euh, mi ngi mi ngi mi ngi fondement wee. Mhm. ci volontaire ci volontaire la. volontaire yooyu ñoom ñoo sos association bu ñuy wax Ahbab Cheikh Omarul Foutiou. maanaam les mooy mooy xaritu Cheikh Omarul Foutiou. waaw ñu ñëw volontaire. Euh, euh, ñëw ci Thierno Mountaga mhm. bokk ak moom liggéey bi bokk ak moom taxawaay bi ba pare ne nag danañ la organiser ziar ba nga xam ne ni bu mucc ayib la mhm. boobu la dooree ba tey li nga waxooy noonu chaque mhm. année ñuy dem mbir mi di gën a yokk macha allah di gën a barkeel di gën a organisation bi di gën a waaye métti gi mu métti yëpp euh, ci seen barke ak seen ñaan mbir mi day woyof ndaxte bi ñu jógee 80 ba tey génération yu bëri jàll na ci waaw mag ñi fa mag ñi ko sosoon mm-hmm. ah, ña sa des bareetuñu même mm-hmm. bu ñu ñëwee ci liggéey bi tamit léegi dootuñu ñëw ci liggéey bi comme mm-hmm. ni ñu ko defee woon avant waaye seeni doom ñoo fi nekk ak seen i euh, rak comme comme euh, commission euh, organisation màgg na bay am fi mom commission ci bam gëna gëna gën organisé wu. gën na organisé wu am bureau. am na bureau léegi am président ah. bureau bu structuré. Mhm. président am secrétaire mhm. général am ay commission. Mhm. commission organisation. commission communication. commission finance. Ah, yoo xam ne lépp. ci marabu bi lay rendre compte mooy Thierno Madani tey. ci ci ci ñaata ci ñaata fan wala ñaata weer ngeen di daje pour préparer ziar bi. six mois avant ziar bi danañu toog. Mm-hmm. commencé wax déjà. Mm-hmm. réfléchir ci thème mu bi. Mm-hmm. thème bi réfléchir ci parrain bi. parce que année année bu nekk dañuy jël benn parrain. tuddee ko mbir mi. ba pare nag réfléchir ci ni ñu koy modalité organisation pratique bi. naka la ñuy tëralee yan yan période lay doon ndaxte xam nañu le 25 janvier date ah. bobu la ñuy jël mhm. autour date bobu la ziar bi di nek waye ay xat-xat mëna am ñu mhm. pousse ko tuuti wala ñu avancer ko tuuti mhm. waaw ah, donc lolu lolu yépp ci 6 mois yoyu dañ ko ci xalat ci ci daje daje yooyu. Mm. da ngeen ci da ngeen ci ànd ak xalifa bi. Mm. wala boog dafa am ku muy délégué moom. pour muy mm. surveiller. dafa am ku euh, am ku mu ciy délégué. mooy coordonnateur général bi di rakkam Thierno Macky Tall Thierno Macky Mountaga. moom mooy coordonnateur général Ahbab Cheikh Oumar. moom mooy ñëw toogal xalifa bi waaye loolu tamit du du du du du du du kii du wàññi ci. Khalifa bi ci bopam mm-hmm. dafa bëgg di présent ci parce que mom mm-hmm. ci bopam akhbab la mm-hmm. ndax biñ koy temps bayam mom ci Je dafa un tok di réunion ak nit ñi membre le membre ba nak mu am euh, branche bu nekk ci bu tuddu rabita manam ñom tamit dañuy gungé akhbab mo yor côté organisationnel légui rabita ñom seen ñom côté conférence religieuse

waaye chaque année day yokk mm-hmm. mais ci yokkute boobu am nañu ay nit ñoo nga xam ne tey dañoo taxaw mm-hmm. pour dimbali axbaar saa yu ñu leen sollicité rek mm-hmm. incha allah ñu ñëw teg Mm-hmm. waaye axbaab tamit am naa yeneen pexe yoo xam ne mm-hmm. ndaxte jamono bi métti na métti boo xam ne du ñëw rek chaque année ngay laaj ay nit mm-hmm. waaye axbaab léegi tër na ay pexe boppam ba nga xam ne toll na foo nga xam ne mën na dégager benn parti budget bi moom ci ah, boppam ndimbal daal na ci fekk loxol borom ndimbal na ci fekk loxol borom ñeneen ñi ñëw tam teg waaw xalifa bi tamit kenn demul mu des loolu loolu am na solo waaw euh, yaa ngi may wax léegi ci wàllu thème bi thème bi ren lan la waaw thème bi ren xam nga depuis euh, bi Thierno Madani nekkee xalif ba léegi maanaam 2007 ba tey mu nekk xalif Thierno Mountaga Tall at bu nekk dafa ne buñu ñëw rek ziar ñaan def kamil ñaan rek bay nit ñu ñibi ñaan bi baax na lool. loolu mooy ziar bi sax. leen jox yóbbal ñu yobal. waaye jox bi nak moy nga organiser ay ben réflexion scientifique. Manam mhm. ku ñëw fi fekk am na benn conférence internationale. bu mu mhm. fekkee. Mhm. ñu dox ko ci ay téré ay livres. Mhm. ay plaquettes comme bi nga yor nii. ñu xamal leen teunkel leen ci. dundu mag ñi. ak lañ fi bàyyi. nga xam ça bo démé yobul bobu dina tax nga né ah man de ziar 2014. wala 2015 wala 2016 2017 ba mu ñëwé li la fa jëlee. dool dooleeku naa ci ndax té xamna naa Thierno Mountaga lan la tabax. xamna naa Thierno Seydou Nour lan la fi bàyyi. xamna Cheikh omar lan la wax nit ñi nañ digal leen nañ fa jaar. sha allah ci ci ci ndollante mm. euh, exposition bi. Mm. ci

jihaad bi kañ la ko def fan la ko defee lu tax mu def jihaad bi mm-hmm. eh, fu mu bi mu demee màkk ñam mm-hmm. fa jëflanteel bi mu demee rawda rasul sallallahu alayhi wa sallam ñoom fa jëflanteel lu mu jël jëlee ba mu fa jëlee ci Cheikh Mamadou Al Ghali mhm. ah, ci ndigalu Cheikh na Ahmed Tijani mhm. loolu yëpp tënk nañ ko mhm. ci ci ci ci exposition bi bi mu demee ba dugg ci xeer bi boo xoolee boo seetloo at bi mu dugg ci xeer bi mooy 1864 at boobu la Thierno Seydou Nourou Tall gënee at donc ah. doon ndonom bi gën a fës ci ay ndonom doon rassembleur kër gi ah. maanaam famille omarienne boo déggee rassembleur bi Thierno Seydou Nourou Tall mu jël moom xilaafa bi toog fii ndakaaru mhm. ñëpp xamoon lu ñu jëflante ak tubaab yi mhm. ak colon yi mhm. ba tax bi ñuy jël suñu indépendance mu def ci lu am solo liggéey ci liggéey bu am solo bu mucc ayib mu dox la dox dox ci loolu nag waaye loolu yëpp muy teete Thierno Mountaga Tall teeku uuf ko ci wetam def ko doomam xam nga Thierno Mountaga doom la ci Thierno Seydou Nourou ndaxte Thierno Seydou Nourou moo ko jur Thierno Nourou Cheikh moo ko jur Thierno Mountaga Amadou moo ko jur Amadou boobu Mountaga moo ko jur Mountaga bu Cheikh Oumar a ko jur donc Mountaga papa yi Thierno Mountaga ak Thierno Seydou seen ak wilaayam ba mhm. dem ba bi Thierno Seydou demee mhm. moom nag mu jël mbir yi mhm. commencé nag moom tamit di doxal ndonoom ci Cheikh Oumar mhm, ndono bu rafet lool mhm. ñu wane ko ci photo yi mu tabax jumaa ji def def teg première pierre bi mhm. bi mu nelawee la ñu jumaa ji mënoon na ci ñaari ñaari ñaari at rek mu ah. jeexal jumaa ji ndaxte am na ñu ñëwoon ne ko bi ah. bàyyi ñu ñu tabax jumaa ji clé en main jox la ko mu ne déedéet man jullit la damaa bëgg jullit yëpp gis seen bopp ci jumaa ji ku ci nekk barkeelu yaatal ba 2007 ah. jumaa ji pare mu tabax mausolée bi denc fii baayam mhm. moom ci boppam fii lañ ko denc. Mm-hmm. ba pare rax ci dolli nag nga gis ci photo yi. ki ñuy wax Abdoulaye Tall. Abdoulaye Tall Abdoulaye Tall. waaw euh, Abdoulaye Tall moom mooy kan ñu bari xamuñu ko. Abdoulaye doomu Ahmadou la. Mm-hmm. Ahmadou mooy taawu Cheikh Mourad Foutiou. xam nga ñun dañu doon jàngal à l'école française mhm. Cheikh Ahmadou Foutiou le grand résistant a un fils Ahmadou point déedéet <laughs> Ahmadou kay taawam la waaye macha allah Cheikh Ahmadou njaboote na njaboote na waaw njaboote na góor njaboote na jigéen surtout nag ci Afrique yëpp waaw am na presque euh, mën nañ wax ni mhm. am na au moins quarante cinq gor loolu nag loolu xam nga loolu du du kenn du kenn moo koy Ahmadou moom mooy taaw waaye am na ay rak bari macha allah yu góor ak jigéen doomu Ahmadu nag mooy Abdullahi bi Abdullahi Tall Abdullahi bi Cheikh Umar làqoo ci xeer bi mhm. Ahmadu jël xilaafa bi mhm. continuer jihaad bi mhm. bi ñu ñëwee en 1890 muy xeex waa Archinar mhm. boobu dem na booru booru booru Niger mhm. pour dem jëli ay ngànnaay ñu ñëw fekk ci biir foor bi mhm. bi ñu xeexee ba dugg ci biir foor bi ñu fekk fa Abdoulaye bi mu am fukki at ak ñaar wala fukki at ak benn ci taarix nekk combattant nekk combattant yor jaas yi bi bi bi militaire français yi duggee ci biir fort bi dañ ko fekk mu yor jaas yi ñu jàpp ko uh-huh. ñëw indil ko Archinar général Archinar général Achinar nekk au lieu que ñu jëm ko rey. mais mais dañ ko jàpp dañ ko jël comme trésor trésor de guerre lañ ko def <laughs> ñu ne kii jàmbaar la bàyyi ñu yóbbu nga am fukki at ak ñaar yor jaasi di xeex naan da ngay protéger sa yaay ak say mag xam nga loolu njàmbarte la ñu jël ko Achinar bi muy ñibbi France mu yóbbaale ko yóbbaale ko foofu dugal ko école dugal ko école française mu def concours Saint-Cyr Saint-Cyr benn école militaire la bu mag ba nga xam ne officier France yi officier yi gën a mag

Thierno Seydou Nourou taal bi nga xam ne wilaaya wilaaya mat na mu ne Thierno Mountaga na toppatoo nu mu delloo see euh, euh, néewu Abdoulaye mm-hmm. en 95 ak gouvernement français négociation yi yàlla def ci kàttanam Thierno Mountaga dellu siwaat ko fii ñu yóbbu ko Ségou ci ay maamam dañ ko foofu kon dellu siwaat nañ ko fii jullee ko fii ci door ko yóbbu Sédhiou yóbbu ko Ségou jullee ko foofu dañ ko macha allah loolu am na solo euh, li may tëjee rek mooy exposition bi mm-hmm. ci fan ngeen référé woo pour pour pour def ay documents historiques ci ay livre Thierno Mountaga am na livre bu mu bind les perles de Cheikh Omar mooy téereem bu rëy boobu mm-hmm. dund Cheikh Omar a ngi foofu mm-hmm. jël nañ fa ay information am na information yi nga xam ne tamit ci euh, écrivain ah. euh, historien américain yi ak français yi ñoom David Robinson ak ñooñu ñëpp xam nañ lañ bind Cheikh Omar jëlee nañ ko loolu am na loo xam ne ci kër gi lañ ko jëlee ak nit ñi nga xam ne dund nañu ak Thierno Seydou ak Thierno Mountaga Tall ñoo ñëpp baaxee nañ ñu ay ak ay photo yoo xam ne mën nañ ko def ci nataal ci nataalu exposition bi fa tabarakallah nga nga baal ma eh, ci waxoon naa ñu tëj dafa am question bu ma la mooy thème bi ren lan la ak euh, maanaam thème bi bu ngeen koy bu ngeen koy tànn ndax borom xam-xamee dañuy dajee hmm. euh, tànn ay thème bañ bañ ba maanaam ne bii la ñuy tànn bii la ba jubóo ci benn wala boog euh, xalifa bi mooy tànn rek ne thème lii la déedéet yàlla def ñu may ñu am xalif xam ne dafa ouvert hmm. te maanaam mën a mën a mën a bokk hmm. loo gis rek daf koy sédd Euh, dafa bàyyi axbaab di liggéey ci ak xelam waaye lu ñu paree rek ñu won ko ko moom ci mbaaxam mu xool mu arbitré thème bi ñu jël ren ren mooy fukkeelu at Thierno Mountaga nelaw ñu ne woon ren du ñu am thème benn thème lay doon

finance islamique développement durable. te moom lañ ah, daaw ñu ngi ko moo nekkoon maanaam moo bi daaw xam allah Alpha ñëpp xam liggéey te ñu te ñu ko ah am xam boo leen Alpha Hachim dañuy ne naar la. dañuy yaakaar naar la te doomu Cheikh Omar. <laughs> wallaay ndeysaan est ce que doomu Cheikh Omar bu ñu wax Alpha Amadou moo ko que est ce que mm-hmm. donc Thierno Madani ci mbaaxam. Mm-hmm. Mm-hmm. moo ñuy def chaque année. bu mm-hmm. génnee ay yu mel noonu nit ñi xam. macha allah tabaarakallah li ñu may waxtu jéem lan ngay tëjee. waaw li may tëjee rek mooy sant leen gërëm leen te lii xam-xam la. te yéen koy tasaare yéen a ngi koy wasaare. te loolu rek li ñuy séntu ci ziar bi ñun. at bu nekk nit ñi bu ñu ñëwee bu ñu amee ay ñaan bu ñu amee ay adada bu ñu amee ay doigt waaye ñuy am yóbbal bi ñu yóbbu am taarix bi ñu yóbbaale ba nga xam ne ci lu la loo xam ne li nga laajte léegi fi mu jógee xàqi ah, la ñu yóbbaale ko nga xam ñii seen borom waaye lan la ñu fi bàyyi loo xam ne bu buñ ko jëfandikoo incha allah suñu anam ci àdduna bi dina baax. jërëjëf tabaarakala jërëjëf jërëjëf Thierno Amadou macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm li nga fi expliqué macha allah leer na euh, te itam doyaluñu waaye wax waxtu rek moo gàtt ñu ngi lay sant di la gërëm leen ñaanal nag euh, li yàlla na yàgg ci seen loxo ngeen yàgg ko dunda ba euh, seen njaboot ñëw fi fekkente ci ak yéen ngeen ànd ak wér ak tal man ci barkente saa salaam ñaanal tamit xalifa bi yàgg leen a gunge tabaaraka moom ak njaboot Cheikh El Hadj yëpp kon mbokk yi sant ci asfiyahi point lii lenn la rek ci ziar bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci mosala ceen Saoud Nourou incha allah nii la ñuy continuer ak yéen ba ziar bi jeex incha allahu taala lépp lu ci am rek ñu indil leen ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf في غرب إفريقيا يهدو به عمر شمر الفوتي وورد مكتومنا يتلى على هلق في غرب إفريقيا